da nga yaa ngi coow de ndeysaan la ñuy coow. lan la ñuy yi. tey a waroo leen tey yéen a aye waroo leen coow tey yéen a aye waroo leen xeex waroo leen xuloo tey yéen aye mbokk yi leen fàttali ba tey ñoo ngi fi nga xamante ni moom mooy kër Sa Thiès waaye dafa mel ni tension tension yee monté La tension est montée. waa ji mu ngi ki nga xamante ne moom mooy ak visite bi parce que bëgguñu benn débordement dañuy génnee gars pour ñu fii mën a am espace waaye dafa mel ni kii génne bu ko génne da ko neexul waaye dañu comprendre que ñi seen liggéey la ñuy def euh, dañ leen fay jël pour sécurité kër gi et département bu ñu gis dañ koy daal di lii yoo ngi noonu ndeysaan muy soog a yegsi wala yegsi na bu yàgg lii yoo ngi noonu nee na moom mooy monument Guédiawaye ku xewle moo ngi fi xàmmewul mbër bu ndaw ak mbër bu mag li du jaan doomu ndeyu bàll mu ngi noonu di soog a yegg tey si kanam. <laughs> ñaari mbëri duggee si géej gi baat bi ne piip. wàllu kenn la. moom bu ma xewlee mu takk si rib waaye bu naka xewlee it mu takk si yàllaa ko booleeg waa famille gi ñu waa waa famille Balla Gaye ndeysaan gis ngeen mu ngi sax da ngay toj benn ñaar ñett ñeent juróom benn nen tablette la de ay waay ma ngay door <laughs> ay tablette na omelette ak cuuj de ma ngay toj rek mais li yooyu noonu ndeysaan liiroo ngi noonu ànd ak Moussa Fall yi ci ngeen gis mooy lépp Sa Thiès. Moussa Fall ànd ak liiru jaan mooy Moussa Fall bu Sa Thiès. sax. da ngay toj de. nen sax weesu nañu am cuut. waaye yàq nañu omelette ngay wax boo ko baxalee mu neex. nen moom amul perdement boo ci amul cuut boo baxalee mu neex boo omeletee mu neex. waaye comme nen yi weesu nañu ami cuuj moom yàqu nañu omelette waaye. kon nañ de. la ñaari tablette dinañ lan toj. buuse keco ba def loolu ak sëriñ bi. <laughs> yàq omelette ak. cey làmb. liiru waaw. liiru liiru de xam nga ne bu géej waaye xewalee mu tax ci boo ko waxee ne maa uuf ñëpp. waaye Moussa Fall mii ngeen gis. mooy lépp Sa mooy kii sol sol ma xaw mu taar saa faa la ngi nii sol mbaxana mi xale yi na ah, xale yi ngay rang gis soow waaw bun ku añ ba pare dana ci baax daal naan sa njar ku añ ba pare ñu jox la kookub soow mbay soow li lan lañ ko xooyalee mbay may soow li la nga ko xoolee. xale yi ngay naan soow. Ah, soow mi xam naa soow suukar rek lan ciy def. waaye soowum lan la. waaye it mën nañ cee def yu neex yëpp ndax sarax moom day neex. <laughs> waaye daal. may soow li luñ xam naa daal mën nañ cee def soow suukar mën naa doon sax meew meew nag. <laughs> nun lu weex rek lan seen xamuñu soow la xamuñu meew. <laughs> lu weex rek lan seen. xale yi ngay guux waaye daal li ma la mën a xamal mooy. may rang xale bu bu mu fekk nga añ daal danga am désert bu baax. yàlla ah, lu ne mën am de. tàngoor ah, lu ne mën de. jékki-jékki si bu sa ku naan demal. nga naan lu xew. lu ne mën a xew de. yàlla bu mu la ah, na waar. demal. <laughs> liiru jaan waaye liiru daa neex en tout daal li xew mooy leketub soow la ñu génn def ci soow ba mu fees yorub kook di tànk di jox xale yu nuy naan ngay guux nee nañ ku guux na nga dem bu dee mooy def lu nekk mbag ah làmb la làmb la est xam nga ne combat Eumeu Sène bi weesu ak Tapha Tine Eumeu def na ko yaa ngi koy fàttaliku ba ñu demee mbaaw rang yoroon ngay wetante rek baaxul baaxul nañ nañ ko moytu baaxul xulloo baaxul si làmb ña ngay wetante rek seen neer yaa ngay tàng bala gay a ngi na leen ndeysaan Balla ngi noonu taxaw sa balcon ba di xool waaye boo gisee lii nga xam ni Sa Thiès ma ngay waaj pour génn parce que oto bi taxaw na ndeysaan ba oto ba taxaw na waaw Balla meer taxaw na sa balcon ba léegi xool. ni situation bi demee. yi ñu war a def. <laughs> waaye bu see ngi noonu ndeysaan moom it di jaabante rek. xam naa am na lu muy pro lu muy programme moo tax mu génn ah. am sarax yu mu def bu gàtt bala moo def. waaye mbay daf mel ni oto bi taxaw na de. oto Sa Thiès. léegi ma gis ne sa buntu kër gi daa mel ne moom de. bu arrière ba sës ci barrière yi. waaw. ah da yaakaar ne day waaj a dem. yaakaar de. ah waaw waaw 16h moins 20. 16h moins. man nan koo wax bu la ëmb seen def ci stade bi. des fois tegtal la. waaw bët di génn dem. waaw. gis nga waa jooju di sotti di sotti bi <laughs> ma ne gis ngeen waa jooju di ah. nga franc la yoroon franc la yoroon waaye léegi la doon ñaanal après mu dem ci Sa Thiès ngeen gis muy sotti biteel bi Franc génne na. ah ku mën ba soog. waaw. moo ñaaral Mor Kankan. nee na moo ñaaral Mor Kankan. kon moom tey comme moom tey am na am na ñaari làmb tey. tey am na ñaari làmb. waaw. waaw ñuy bëre. ak Pakola Balde. ndeysaan nekk ñetti grand combat ma ngay wis. xorom la wis xorom la wis yaram ba daa tàng wis ndeysaan yaram bee tàng waaye fii daa war a xorom waaw wax naa leen ko buñ coow faaw ñu génn tottal buñ coow làmba <laughs> ngi noonu waaye bala Gaye a ngi noonu ndeysaan Balla noonu si buntu ba. Balla génn na. ma noonu si buntu ba ndeysaan génn na de. Balla Gaye génnaat na. noonu tey moom capuchon la moom la sol li ci changé rek mooy mbaxana mu xonq la sol da koo simmi sol bu marron la sol mu xonq la waaye da koo simmi sol benn cap bu marron da koo simmi sol benn cap bu marron balaa ngi noonu ndeysaan moom tafaatin ñaari combat la am xam naa bu dee Sa Thiès na face à dina neex waaw bu Sa Thiès bu daane. avant bëj bi la ñuy face to face. la face to face laata lamb ji. Uh-huh. laata lamb ji avant lamb ji. avant lamb wax li ñuy wax. waaw ndaxte bu lamb ji jeexee day tas. bu lamb ji jeexee day tas. waaye nag ñoom ñaar champion yooyu buñ xaarloo woon public bi ne bu jeexee la ñuy la ñuy face to face ah. public bi ko xaar ndax Balla Gaye nit ñi dañ koo bëgg waaye neet yay tànk kenn du tal sa morom waaye bu boobaa kon bu làmb ji jeexee moom pëccëxoo lay doon pëccëxoo kenn dootul kenn tal kenn kenn dootul tal tal kenn waaye daal lima xam mooy Balla Gaye tey làmb ji làmbam la ndax nag nu nu tolloo jamono man ak yow nga ñëw daan ma ñaari yoon wala sax nga mag ma ci at bokk sax ndax bu ñuy wax ci at Eumeu Sène moo mag Balla Gaye nga mag ma ah, ci at ñu bëri nga daan ma ñaari yoon sama rakk màgg ba toll ni man ma nangu nga di ko daan nag bu boobaa nag dëgg jamono jii ñu toll kenn du ko am di tëdd di nelaw déedéet baal

bu baax la. waaw nit ku bëgg lu baax ndeysaan. wallaay nit ku baax nit ku bëgg lu baax koo xam ne kuy defar. ñun xam nañ ci dara. borom borom borom kagul ba la ñëw na. waaw ñëw na. ñëw na ak bagage am. ñëw na ak leket bi ñu ci mbuus. ak ñaari siwa ak saak ka mu àndal loolu la

la Lion de Guédiawaye boo ñëwee ci buntu kër ñaari gaynde ngay fekk ñu def ko loolu nag ñu bari jàpp nañ ne lim naan ko la Lion de Guédiawaye tax muy def ñaari gaynde. waaye nag ñaari gaynde la waaye si kaw a ngi noonu bind si. dama laa bëgg a wax li tax mu koy def rek. bu doon BG2 waxal waxal ñu dëgg mbay. moom taalibe sëñ Baara waaw. te kër sëñ Baara boo dem wala doomi sëñ Baara da nga fekk ñaari gaynde ca bunt. ndeysaan. mooy sëñ Baara Mbacke borom rek de yaa ngi jaar kër sëñ Sidi Muxtaar gi ci asalem. loo fay gis. ñaari gaynde mbaat laab. boo demee buy mbind loo fay gis. moom nag taalibe sëñ Basiiru Baara la gisoo photo sëñ Bas Baara bi nee ca bunt. mu ngoog ci kaw de. looloo tax comme waa guy mbind la këram yëpp boo demee marisit nii la mel. mbay li ngay wax kenn xamu ko woon. waaw nii la demee maa lay wax lii ma. <laughs> yaay làmb nii la demee. këram boo dem ñaari gay dee ca buntu kër ga moom taalibi sëñ Baara la. ndeysaan. borom guy mbind ak Mbàkke Kajoor. waaw hmm. mi ngi mi ngi mi ngi wax booy tike yi nu ñuy def ba am ko. ah mais mënut ñàkk ndax boo yii fi yendu yëpp yenu na maanaam ñu jox leen ay ticket ñu dem seetaani làmb